man bi ma koy dégg ba dégg la ci suuf ma ne cey ngeer sama waaw parce que maa ngi waxtaan ak moom maay naan ko xam nga sëy la bu mu bëggoon a dugg ma ne ko bu ci dugg parce que kii baaxut nii la mel nii la mel nii la mel booba ngoro gi neex na xam nga ngoro bu neexee moo taxit ba mu naqaree bañ ma ci tuddee dégg naa la ma leen wax hmm. loolu wax ji rek man moom bu naqaree buy neex mën naa bañ a yëg mais bu naqaree bu ma yëg goreel rek ok waaw mbiru Ron Yafet am na lu ci bees nee nañ ku yàgg liggéeyal état bu Sénégal la wax dëgg yàlla am na ci ay chantier yu ñu jot a wane yoo xam te ne mu ngi ko doon doxal tegoon ko ci règle de l'art ci lu ñu wax. waaw musul am ak affaire état bu Sénégal. Hmm. am na ñu jàpp ne sax loolooy justifier xaalis bu ñu ne état bu Sénégal da ko ko yoreel. waaw nga am ci ay xibaar yu bees mën nga ñu ko baaxee. non parce que parce que moom diggante bi mu am ak nguur gi mooy. dañ ne hmm. dafa am suuf suñ ko jox. te waruñu ko ko jox. ñu ne dañuy arrêté travaux yi. moom mooy d'après am na ñu doon wax naan état bi da koo sax xam nga journaliste di ñuy jàllale tamit nañ ko xoolaat. loolu la ñu wax de dañu arrêté travaux yi arrêté pour le moment pour saytu mais ñeene dañ na ko nangu te suuf boo xam ne borom da ko da ciy jël daf xaalis ba mu ko jënde hmm. bàyyi ba la mu ko euh, jënde da koo versé trésor public loolu am na traçabilité quand même loolu mënoo ñëw nangoo ko noonu ki ko ko attribué nañ koo defee amul benn këyit boo mën a xool mu nekk farce boo ko dee récupérer tamit da ngay jël mu ca defoon delloo ko ko bu doon da koo luubal daa def foo usage de foo da koo sàcc. Hmm. garaawul dañ ko kaa may garaawul wax dëgg yàlla kenn mayu ko ko alalam la ci def te euh, marché la boo xam maanaam programme la boo xam ne Sénégal mën na cee gis boppam. Mhm. du yàgg ba mu yanu suuf si di ko yóbbu. donc su ma la déggee ni ñu ni ñu waxee mbir mi ak na mu xewee du benn. non benn état bi xam nga arrêté woon na travaux yi ci corniche bi ju bari. waaw yéen ñëpp fa léegi travaux am da caa bokk nag. mais li ñuy profité naan état bi nangu na nangu état nangu ma ne état nangagul suufu kenn parce que xamagul ko sàcc. état bi nangoogul suufu kenn laa wax ndax gisul xamagul kan moo sàcc borom suuf yi dañoo am seeni suuf amee ko légalement lu ci état soxla day yëkkati seen alal delloo la ko. am hmm. déet. nii lañ xam. d'accord kon maanaam sa journaliste nañu xoolaat seenu mbind ko ma te dem ci dem ci source bi. man hmm. ingénieur Rewmi FM bi tey suba daje na nee naa la nee nga ma yow sax ku may dajal ci restaurant yi rek la ñuy daje. <laughs> man moom ñaare ku may dajal ci restaurant yi la ñuy daje. bëri naa ñi mu koy wax daal bakkane yi daal sa waa ji daje naa moom restaurant sàngam restaurant sàngam waaw restaurant sàngam restaurant yi nga ma mën a fekk parce que yu bari man du ma benn restaurant damay cuut capet <laughs> réew mee wóorut affaire daal nañ ci def nànk te xam ne yenn affaire te nguur gi man dama leen di ñaax bu ñu topp diw xaritu Macky Sall la diw xaritu Macky Sall la diw xaritu diw Macky Sall non non sa waay yooyu doxalutum réew Macky Sall li mu defoon boo gisee ni lii amul benn problème lu baax la ñoŋal ko mu dem boo gisee ne baaxul nga jubanti joyanti. waaye tamit loolu tekkiwul ne xaalisu ja alalu askan wi duñ duñ duñ. duñ ko say mais yow nga yàgg liggéeyal sax mu liggéeyal la gis nga bâtiment yi ma la yónnee fii lim liggéey yëpp ci Sénégal mais lii dul ndaw te mosoo ko dégg ak état du Sénégal ñu xëccoo. Hmm. kii tey yaakaar naa kii dafa dem sax ba bokk ci ci ci li contribuer ci économie Sénégal bokk na ci moom li defar réewum Sénégal. parce que bari na ñu bari fii ay marché nga leen jox ñu dóor xaalis ba gendarmerie ngeen ni mu jég police egg naag eggul ñi ngi wax université bi Sonko doon wax fee nee nañ xaajugut a egg te dugal nañ fa alal bañ doon wax Sédhiou ñu ne eggagul dugal nañ fa alal mais ñëpp ñiy tabax yooyu yóbbu pourtant genn wàll ay sénégalais yor marché boobu de xoolal moom doomu réewu jàmbur moom mu mën a jël lii liggéey ko ci réew mi te mosoo koo dégg wala tardement wala dara. Hmm. kooku taxawaayam nag ci réew mi wax dëgg yàlla loolu war nañ ko rafetlu quand même Macky Sall nag du xaritam yëpp a réew mi nañ may ëpp homme d'affaires yi jàmm tuuti homme ñoo yor daanaka ñoo yor am d'affaire bu gaaw koo yóbbu kaso baaxul. baaxul waaw. Euh, dernière question Abdou Nguer mbiru aadama gay ak Moustapha Diakhaté normalement tey ci altine ji lañ leen war a déférer foofu la ca parquet rawatina ci tribunal bu grande instance bu Dakar moom journaliste bi ak ki ne moo di euh, Moustapha Diakhaté waa APR bind ab këyit ñaawlu ni leen jàppee jàpp ne teguwul ci dara ay waxasu suñu naxa sa xandang rek. non car Adama Gaye c'est exceptionnel daam ko gaañu mu ne daan dañ ko rey waaye loolu procureur moo def erreur bi naa ci ñëw. Adama Gaye kii Moustapha Diakhaté li mu wax baatu wax xam nga bëgg baatu al ko ñu jàng arab ñu firi ko ci olof mooy lan xam mooy lan. réer askan wi dañoo al mooy askan dañoo réer loolu mooy baatu al boo demee ci sindi di sëñ Touba nga ko fi bind naan yow yàlla suñu borom bu ma bàyyeeg sama bakkan kon damay al ko damay réer bakkan boo ko bàyyeek borom da koy yóbbu fu kenn xamul. Hmm. baat maanaam baat yi bu ko diisal. te loolu lañ koy toppee. ah loolu ah, rek la wax de wu mën a jël sa carte. sànnil ko ku doon taal sama réew ku doon li da ngaa alko loolu la wax léegi loolu baatu alko bi laa bëgg baat boobu rek mooy problème bi alko googu ñu jël ba ku réyal mooy ku réer baat bi réyul léegi nag par rapport ak baatu ñoom docteur jàlloo yi ñu wax ay saagay ndey euh, kii imam bi ñu fi tegoon fii ki doon wax naan rey leen presse bi àndut ak yéen ñi ànd ak yéen ngeen jox leen ab xaalis ah, am am moom tamit mu ne jigéen ju votel Amadou Ba doomeeraam nga xam nga yooyu yëpp am na fi kenn waxul ah, noonu yéen nañ bàyyi mu sedd dañ bàyyi seen yii tamit li valable pour ñii moo valable pour ñee Cheikh Thioro ne ku bëggul ku contre Sonko sa ndey liggéeyul kenn waxu ko dara. Hmm. mais yooyu man est-ce man yi may wax nii est-ce que koy dégg ñi yor numéro jomaay nañuy dagg yi yónnee ko ko. mu ne waa këram li li yoonam. non pour mu xam ne waa këram li li lay lañu wax mu man leen arrêté quand même mais say waa kër di wax lu leen neex kumba am na ndey dama dégg ñu naan kumba am ndey kumba amul ndey ma ne ñaari kumba yëpp am ndey jomaay mii di seen bàyyi leen yamalewut hmm. waaw ñaari kumba yi am nañ ndey jomaayee seen bàyyi da leen a yamale wut. Mhm. mooy ñun sénégalais yi féete ne ak ñi féete passif ñaari kumba lañ ñun ñëpp am ndey jomaayee suñ bàyyi moo ñu respecté moo ñu yamale wut. nañu yamale mbiru Adama Gaye fan nga waxee ne procureur dafa Adama Gaye xam nga procureur fii laa toogoon dox ma ne. Hmm. bi mu bindee ne du mort naturel rek la ubbi ay question yu baree baree bare yow du mort naturel te nangu woo ko ko rey mais yow da ngay tax nit ñi ñenn ñi di bàkkaarul sax ñenn ñi di xalaat lu ñaaw moom bi ba xam ne li du mort naturel te mënu koo wax xoolal bu mu ko communiquer bu mu def communiqué de la presse looloo tax aadama Gaye mii di ci xuus man loolu moo tax ba mu ko waxee laa ne ah procureur de la république def na erreur. Hmm. ndax erreur bi mu def mooy dafa war a xam population Sénégal nan lañ mel. population Sénégal dañoo xaw a yor jikkoy kajoor kajoor xam nga jikkoy kajoor kajoor mooy lan. mooy lan kajoor kajoor buggul nga wax bàyyi ko moom daa war di yëg kajoor kajoor li koy booleeg àndandoo mooy bu bu mu yëg bu yëgul rek ngeen ko yëg eh, bi mu xoolee xam ne lii. neexul ba neexul du mort naturel mais mënu ma ko wax xam nga lu ko waroon a. Hmm. woo famille bi nang waxtaan ak ñoom ci dal ak tey expliqué leen ni leen dama bëgg affaire yam fii ñu def ko comme mort naturel. waaw mu génn ne leen noo c'est que mort naturel lañ pare ca dem si yoon. mais soo nee jàpp ne waroon na xuus. seen baabu bàyyi rek ginnaaw Sénégal laa bëgg maanaam pour procureur laa bëgg ñu jàngal ko sénégalais yi nu mel. sénégalais yi xamatuñ ay point d'interrogation. amul lees waxul. non point d'interrogation xamu ko de boo xasee dugal seen bopp dut rek. indil nga leen problème dañoo dañ kumpa. Hmm. léegi nag ba mu defee loolu xëy na nag kii la ci jublu woon rek maanaam pour wax nit ñi de moo naturel mais mënu ko wax yooyu mais sénégalais yi gisewuñ foofu moo tax Adama Gaye mii xuus te léegi lam doon bañ nar naa am de bu bàyyiwul gay la mu doon bañ day am xam nga lu mu doon bañ lu mu doon. mooy mooy siiwal gam ko doon bañ a siiwal day siiw par force parce que boo poursuivre Adama Gaye ngir diffusion de fausses nouvelles c'est-à-dire nee na dañ koo rey. te ñi ko rey nga ci dëkk bi nga ne ko waxoo dëgg ubbi nga beneen fenêtre. Mhm. xam nga beneen fenêtre bi nga ubbi nu mu tudd. nu mu tudd fenêtre benn comme Adama Gaye waxul dëgg. Mhm. waa ji kenn reyu ko ah. Mhm. kon sii ka waa ji moo rey boppam loolu la nit ñi di xalaat. d'accord léegi nag nga yóbbu Adama gay tribunal àtte ko. Adama Gaye bu indee ne waaj yi dañ koo rey yow faaw nga ne ko reyuñu ko indi teg. la nga doon bañ nag dem ci penc ma. moo tax jàpp aadama gay loolu la la nga doon bañ mu feeñ mooy ñëw feeñ. mënuñ jàpp ne pour kaaraangeem ma tax ñu. jàpp non du kaar kaaraangeem lan kan moo fi xoqatal aadama gay kan moo ko tudd. aadama gay set Macky Sall la doon jéem a sosal rek <laughs> Macky la doon sosal waaye tamit aadama li tax ñu jàpp ko. Hmm. loolu tamit lii xam nga sa waay ay prétexte la rek. Abbas Fall ak 5 milliards yi da ngeen koo fàtte xam nañ ne buñ ci jàppee aadama day xaw a ridicule aadama def na penalty nag ñu exploité ko. waaye déedéet waaye Abdou Nguer li nga wax ni simple na trop. Ibrahima daa wax na lu raw li aadama wax jàppuñu ko Ibrahima Sall ne gendarme yi xam na nu ñu leen faate xam na ba jël nañ leen teg ba faat leen loolu gën a garaaw. mais amaana dañoo yegseegul ci dossier boobu bu ñu ko yegsee dinañ ko woo en tant que témoin ah, ah, Adama ah, dossier bi déedéet léegi da koy jàpp léegi. non non xam nga lu la ko jàpp parce que dossier boobu. am si lu ko bëri yow mën Ismaïla Madior Fall loolu la waxoon waa këram bokk porte plainte retiré leen loolu mm. dafa waxoon ne dossier bi amnistie bi yóbbu na ko mais après dafa ñëw rectifier at amnistie génnewul dossier boobu de mm. loolu bokkul ci amnistie bi affaire Didier Badji ak Fulbert ay gendarme yu ñu war a leeral seeni mbir la te Ibrahima Sall nee na xam na te moom it déedéet ba pare nee xam na ay ñaari gendarme yu dugal ci bërigo taal leen nee na moom xamoon na loolu hmm? waaw yu garaaw ay ay nee dañ leen a rey tëmbaleen yooyu yëpp xamoon na ko kenn woowu ko moo tax ma la Adama Gaye mi olof nee na joojo matul jooyoo mer mu yàgg la <laughs> tuumaal na Abbas 5 milliards Abbas xamul fu muy jaar. équation occasion taxaw na ah, man de loolu laa gis. sama gis-gis la jàngatal ma bu yem rek ñu ñuy jeexale foofu mbiru Samuel Sarr. déglu nañ directeur général bu Sénélec. waaw ñu porté woon ko plainte ci mbir moom boobu tamit c'est ridicule. waa ngeer kon yow lan lan lan. xam nga lu tax Samuel saar mu ngi liggéey ak état du Sénégal. Hmm. ci benn projet boo xam ne moom bi muy dem Dubaï. n'est-ce pas mook directeur Sénélec a te tàngoon na bi muy dem kooku bàyyil ba mu ñëw këram nga convoqué ko mu ñëw mais yow état du Sénégal yow lay liggéeyal leer na leen bu paree di nga ko fay xaalisam mais partenaire bi nga ko séqal bu ñëwee porte plainte nga enquête ba xam ne kii yoreel na ko mais boo koy fay nga teq ko ci jox ko partenaire bi pour protéger pour protéger kiy liggéey sa chantier bi. Hmm. gën lu yomb waaye ancien résime bi la bokkoon rek nii ni ñu ko bëgg jàppee yomb na de c'est très simple man Mouhamed yaay sama patron. Hmm. maak seen suñu patron. Hmm. ameel nga ñu xaalis dèjà suñu liggéey. ñun ñaar amelante nañ. te yaa ñu war a àtte yaa ñu war a tëj mais mën nga taxaw régler ko kenn du dem kaso parce que yaa yor sunu alal bu dee def am na. noonu nga ko jàngatee yow. moo gën a yomb di Samuel continue liggéeyam waa ji continue kenn mënu cee rëcc ndax yow boobaa nag boo jëlee alal ji fay sami ne ko fayal kii mu bañ boo ko dugalee ci kaso bi dara bu fekkee sami ameel na ko sami tamit porté ko plainte ok loolu kese la ni <laughs> dossier yi nañ ko xoolaat de. da nga jàpp ne am na. am na na si lu ci. day am dossier yu neex a ñaar ñu séq liggéey liggéey bi jeexagul fayaguñ leen bu doon liggéey bi jeex na bañ fay Samuel Sarr ba mu dem voilà liggéey bi jeexagul ñu ngi ci ñu ne quatre vingt dix pour cent xaw ma quatre vingt mu pare na parce que kon liggéey bi léegi mu pare. Hmm. Samuel defoon pour liggéey bee taxoon mu dem. mooy bi mu demee waaw liggéey bii tax ko yóbboon ànd ak directeur Sénélec kooku daa daw. ex kii nga ne ko kër genre humiliation la quand même nañ bàyyi kilifa yi ñu humilier loolu nga jàpp ah man la loolu laa gis. amoon naa mbégte ànd ak yow ma bàyyi la nga tàggatoo. waa maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal réew mi jàmm di wax jomaay na bàyyi xel ci waa këram yi li ñuy def ci réew mi tamit wax dëgg yàlla. comme lan lim si ñaar ba ñett ñëpp waaw gis na wax lim naa ko fi ba sonn. waaw jërëjëf kontaan naa. jaajëf Abdou Nguer yéen itam amoon nañu mbégte ànd ak yéen internet yi di leen jaajëfal dig leen daje beneen yoon ci beneen jotaay jaa ngeen jëf Ndeye Fatou Seck mu nekkoon ci xarale gi bat Badji ak Jamanka